alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi di bu baax yàlla mi ñu mën a teew ci sa kanam euh, maa ngi ànd ak euh, sëñ taala bi nga xam ne hmm. mboolem daayira yi sëñ Abdou Wilane masa samp moom moom moo ne ci bopp bi ñun ñëpp mooy ñu jiite moo ñu jiite ci wàllu daayira yooyu nga xam ne ëpp na ñetti téeméeri daayira yëpp fédération bi ëmb leen fédération boobu mu jiite ko rafetal lool nag ci lépp loo xam ne lii kilifa war na ko taxawee ci wàllu magi taalibe yi da ko rafetal trop moo tax ba bi ci dund sëñ Abdou fu mu daan liggéeyee ci pays bi loo xam ne lu mu itteel la rek daf naan ana sëñ Talla jiital ko ci ñun masu ci yàq dara loolu moo waral <clears throat> mu jiite délégation bi tey jiite délégation bi rek indi kii nga xam ne tey ñun ñun moom mooy suñ sëriñ yéen yéen ay sëriñam ndax comme sëñ Abdou moo doon suñu lépp ñu bootu ci ginnaawam te euh, ay at duñu tënk mukk ñu walbatiku toppaat ci moom gannaaw boo ko sampee gannaaw yaa ko samp rek ñun tam wëlbatiku nañ topp ko jébbalul ko niñ defoon bayam waaye mu nekk de ndaw loo xam ne nag chab la boo xam ne euh, fa la juddoo fa la yaroo waaye ñu ko mag yebuñu ko ndax xamuñu ci moom benn yëfi xale bu mu a def ba depuis mu am juróomi at ba tey luñ xam ci moom mooy bëgg xam-xam mokkal na wëttu na alxuraan ba mooy nekk ndaw lu ndaw lu tuut itteel xam-xam sëñ daara bu mag la ci wàllu majalis bii da koy jàngale fa mu nekkoon tam daf ko fa daan jàngale ci xaahira ba lii am nag bi nga joxee ndigal moo tax mu ñëw bi mu toogee ba gan ñi wàññeeku nag mu ne bon na ñëw nuyu si la loolu moo doon solo si yoon wi jazakallahu xayran ñu de ko dénk nag bu baax ni la bàyyam dénk yoon boppam masu fiy ñëw lu dul ñun wax nañu ne kaale mën nay gis Cheikh yi ñëwaan fi rek nee nañ kaay la ñu kaay la mën na ji sëriñ bi kon nag moo tax mu ñëw moom tam pour taxawul yooyee tànk di ñaan ngeen taxawu ko ci seen ñaan ak seen lépp jërëjëf. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu leen di wax marhaban bikum fi madinatikum madinati cheikhina wa cheikhikum wa marhaban bikum fi lqulubi qabla al abwab ومرحبا بكم في كل ما تطلبونه في حضرة شيخكم آه، يقول الله تعالى في القرآن لأهل الجنة لهم لهم فيها ما يشاءون إن شاء الله لكم وأنتم أيضا في حضرة شيخكم لكم ما تشاءون إن شاء الله آه، سنتي على bu دجبي دجبي daje ay ay nit leen nit ñu xam li war a def daje ay nit lañ yoo xam ne am nañ yar parce que am nañ ku leen yar daje boo xam ne ay nit lañ yoo xam ne am nañ xam-xam seen xam-xam tënku leen bañ fàtte fi nga xam ne fa la ute utee ji euh, dooleeku ak kawe euh, Cheikh Abdoulaye Wilane دوينا شي مثال تي لونيك خمنا كو تيب كوما اسمع يمبرم خمنا جافا جافا يمجار يب جافا جافا يمجار يب دفنا ندغن تمك على جابت الله جافا جافا دفنا ندغن تمك نت نيو باري باري كي دك بي اي جافا جافا واي دفا ام نيو خمنا يالا دفلينا تان رك تبولي سيتلو سين دوند يب دفاي soppandiku شدون صحابة رسول الله أبدو لان جاف جاف يويب مقيت أخوي مقام أبو بكر الصديق أنا صادق فيما أقول أنا صادق متخمون نك صديق نك صديق دق دق تخوايا مقيت أخو عمر بن الخطاب في لي خمنا أنا فيه صادق أنا فيه أيضا جاد ماشي ورانتا جاد أنا كنت أخوي dama ko war a taxawoo moo tax booba Omar ibn Xattaab ngoog feeñ na ci dundam dina ko taxawee lépp loo xam ne dafay dolli nit ci àddinam ak àllaaxiram dinaa ko taxawee alalam mu tasaare ko ci àddina bi yëpp dëgg-dëgg Ousmane ibn Affan ngoog alalam tasaare na ko ci mbooloo mi yëpp Ali ibn Abi Talib انا مدينه العلم وعلي بابها دك دك خم لان ديغا خم بروم خم خم لا واخما لا بروم خم خم رك امتي واي بروم خم خم بو ام غولا بو ام غو تي خم خم نيت دينا ام خم خم واي دو ام غوي خم خم غوي خم خم بوي دغلو بوي بوي غيس بروم دي وقتان اك موم داغي خم ييغاتوم اك تاسرام دو فنشي بدي دو فنشي كانام غي دو فنشي دارا waaye di nga yëg ne kii borom xam-xam ngay waxat borom xam-xam boo ma ngay waxat yooyu yëpp am na ko waaye yooyu yëpp effacé na ko ne ana Abdou Barhama yaax na parce que foofu la ñi dañ nekk yooyu yëpp yooyu yëpp tiitar la ana siddiqun ana sadiqun ana munfiqun fi sabilillah wa ana aalim yooyu yëpp benn bu ci nekk rek daraja la boo xam ne doyoon na ko pour mu dunde ko ci addina ni mu bëggee hmm? waaye tànn na ko nag pour wax ne nit ñi jàngal ne leen nit ku nekk nag jëmuwaayam dafa war a am sukkandikuwaay boo amul sukkandikuwaay loo dëgër dëgër ci àddina dëgëri àddina rek la bu yàggee tuuti rek mu yëngatu nga yaa ngi tàmbali say mbir sa diggante ak xalifa Cheikh Ibrahima jafe jafe na yombut waaye waaye nga dem ba xalifa Cheikh Ibrahima ne la suma kër ngi nii jàppal jëlal loo bëgg sama gërëm naa la ah liggéeyloo ko ba mu gis ne kañ ko doon wax ak kii du benn ah kii rajulun sadiqun donc bon taxawee na maqaamu siddiqiya ba Alaaji Abdoulaye nangul ko loolu gërëm ko ci mu ak dundam ñaanal ko wax ma ci moom wax yoo xam ne man daal li ma liñ ma daan wax ci bilaan ndekete dama koo gisutoon rek hmm, dama koo gisutoon mais boo ko gisee da nga xam ne li ñuy wax ci moom ak moom li mu doon du benn ah ndax ku doon ku kuy caaxaane nit ñi doo doo doo yàgg doo yàgg doo yàgg sa affaire taxaw nga mun a sos say mbir jafe-jafe yi mu ànd ak te lu ànd ak jafe-jafe rek du dara dafay ànd ak jafe-jafe bañ naan ah xataa ida stay'asa rusulu wa zannu annahum qad kuzibu jaahum nasruna jaahum nasruna fa nunji man nasha bu ko defee donc Abdoulaye Wilane misaal la misaal la fi diin bu ñu war a topp misaal la ci tariqa tiyaan bu ñu war a topp misaal la ci biir fayda tiyaan ya bu ñu war a bokk misaal la ci insaaniya ci insaaniya insaaniya boo xam ne ku xam Abdoulaye Wilane da nga yëg ci moom insaaniya boo xam ne da ngay xam ne du lii insaaniya muftaala walakin mu ngi bàyyi ko ci say eh, mu'taqadaat mu ngi bàyyi ko ci sa diine mu ngi bàyyi ko ci sa gëm-gëm mu ngi bàyyi ko ci ñi nga war a roy te amul benn royu royuwaay bu dul Cheikh ma ba tuddee boppam Abdou Barhama ah loolu yëpp dafay tegtale ne nit ku am dogu la nit ku am taxawaay la nit ku am jëmuwaay la aussi nit ku am jëmuwaay la ci ay waxtaanam yu am xorom bu ma daan romb jumaa ji damay gëmm waaye dama koy damay gestu sama gannaaw ndax bëgguma koo gis waaye nekk fekk booba yëpp dama doon liggéeyal borom jumaa ji noo xam ne xaw ma woon moom laa doon liggéeyal. xam ne xaw ma woon ne moom laa doon liggéeyal. ndax yàlla bu la bëggee dëgëral ala fokk itam dana jaar li lu wakum ayukum ahsanu amala sidq sidq ci li nga doon def sidq ci sa taxawaay moo la may ci boppam da ngay dem ba nga xam ne inna allaha maa saadiqin kunu maa sadiqin ah yàlla daf lay ubbi li nga war a gis yëpp li nga war a xam yëpp loolu yëpp bi mu paree mu pare mu xam ko borom xam-xam la ko ni ma leen ko waxee ku ne xee mu tiitaroo xam-xam feeñal ko euh, ar yaxya rajul yaminan wa shimalan yunfiq fi sabilillah yaminan wa shimalan wala yu ah doy na ko pour mu nekk jiitu nit ñi waaye loolu yëpp tëral na ko dellu fi nga xam ne fa la nit mooy cosaanu mbaax euh, آه، لما أراد الله خلق خلقه بالمحبة خلقهم كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني إذا من باب المحبة خرجنا إلى الله من الله تبارك وتعالى ومن باب المحبة أيضا نعود إلى الله تبارك وتعالى كنت قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله ليس قل كنتم تخافون الله إن كنتم تخشون الله إن كنتم تج... إن كنتم تحبون الله لأن بالباب المحبة luy yaatu rek foofu lay yaatoo ci yàlla luy xatitam foofu lay xatee ndax boo xasee dugg ci yaatu yàlla googu mbugeel yàlla googu comme ni sëriñam waxoon gisuma fu may xoole nit pour mere ko wala pour bañ ko boo dëggoo say taxawaayu sëriñ dafay feeñ ci yow taxawaayu saxaaba yi dafay feeñ ci yow firi alxuraan dafa yomb ci yow ndax du firi nangam nangam nangam nangam nangam nangam waaye da nga koy firi fii xarakaatika wa sakanaatika da nga koy firi fii aqwaalika da nga koy firi ci sa jëflante daf koy firi ci misaal mi nga xam ne tànn nga ko pour dund ko pare itam pour ànd koog nit ñi xam naa Cheikh Abdoulaye Wilane bu baax léeg-léeg ma jaar Kaffrine képp ku fa def nga yóbbu ca na ko maag moom rek ñu toog waxtaan mu nettali ma ay jafe-jafeem ne ko loolu yëpp bu jaaxal amut luy jóg te nar jëm kër toog ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu bu mu la jaaxal bu mu la tiital euh, waaye nekk rek saadiq fi mawqifika boo ko defee da gis ne jafe-jafe amut ah waxi nit ñi rek moo am loolu rek moo am waaye loolu yëpp bu yàggee. ها دغه گيسنا صحابه صيف تنقشع يخنا داني دم با اك شي خمن رك موي دغ على جاب لاي بو موي ген تادينا خمن ني كي دغ دغ بو ما تيلونا خم ني ني لا مل بون افري دينا اب في مطول ما افري دينا من اب في مطول واي نك يالا يتم نيم بغي رك نون لاي دافي ا آه، نيم نيم نيم نيم بغي نون لاي دافي باسكو سو فيكون تيلنا خمن تيغلا يا عبد الله كون خاينه دو ها دو دو دو تسارو يعني تكون تيرنا ديغو كلا جي عبد الله بون داف كوي اوف رك رانا مو جيخ واي نك داف كوي سي يالا يالا بوغوت لول داف كو بوغا باي مو باي كو شبيتي دافال سي طريقه بي دافال دينا يي دافال فايده تيجانيه لو خامني الله جي عبد الله دافا اونيكو دي سي مو ديكو كو سانتي لول ييب ndax مراحل اربعه يما لين وخان صديقيه والصدق والعزم والاريحيه والعلم يريد يلا بولا نقول ايو يب تكنيكو فلي باب المحبه باب المحبه بوخمني محبه رجلا موم شي بوفم غيسول بوفم موي دارا من مو نياو مي من مو غات مي كوكو نيمي واخ سيكال ماي طالبي ها دغ دغ كوكو خمغا ني يالا رك غاي واخ دواي واخ نيت ني واخوك نيت ني يالا غاي واخات waaye boo xam ne làmmiñ yàlla mooy wax ci yow loo wax rek nit ñi nangu ne noonu la parce que euh, euh, kenn nekku fi kuy wax ku dul yàlla kenn nekku fi kuy jottali ku dul yàlla bon nag boo jàppandekoo ci goj boobu waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu boo ci xasee téye bàyyi mu ne yaa ngi téye ci bu ngoo xam ne benn taraf ba yàlla moo ko téye nga téye ci benn taraf bi kon nag boole ngaa ma foofu amul dara loo xam ne du la aggali fa nga xam ne fa nga bëgg a dem boo ko booleeg wafa boo ko booleeg ahd boo ko booleeg sidq te yooyu yëpp dëgg-dëgg axlaqiyaatul quran yëpp ak ni ñu mag ñëpp dinga ko jàng ci dundu euh, Abdoulaye Wilane Abdoulaye Wilane Cheikh Abdoulaye Wilane yàlla dëkkale woon nañu bu gàmmu jotaan fii lay dara ah, euh, bon suma kemb kàttan nu ma mën dinaa ko ganale dinaa ko wax marxaban ci sama kattan ci sama mën-mën ci sama amuwaay ah parce que ndax itam yàlla buy boole nit ñi def leen ci boole baatinan seen baatin ñooy jokkaloo ah seen baatin ñooy waxtaan seen baatin ñooy déggoo moo tax am nañ am nañ ay ay ay itisaalaat yoo xam ne xeyna yéen xamul leen ko ah parce que yoonu kenn nekku ci yàlla rek la waye yàlla dina feñal li nga xamne ne la ah wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna alhamdullilah yàlla ci mbaxam ñuy ànd di dox ba nekatu fi yàlla mayma ci ci darajam ci karamam doomam maa ko wax nit ñu ne leen ne ànd ànd leen ak moom loolu yëpp wallahu muxrijun maa kuntum taktumun euh, bon ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax ñu ngi lay dëgëral bu baax ñu ngi ñaan yàlla mu dëgëral la boppam yàlla rek moo mën a dëgëral yal yàlla dëgëral la boppam sa sa sa baay mooy kii ma wax kii li ma xam nag daa ko wante euh, wala boog li ma mën a wax laa wax Eh, yal na yàlla teg la foofu na romb ko eh, maa ngi fàttaliku benn bés maa ngi ne nekk moroomu xale yi benn waay fekk ma ci mbaar ma toog bàyyi ngi ci biir mu ne ma dama bëgg la dama la bëgg a ñaanal yàlla nga am li sa baay am mu ne ko déedéet bu ma ñaanal yàlla kay ñaanal ma am lu ko ëpp moom am na ko ba pare li ma am ba pare lu ma koy doyati ah ñaanal ma ma am lu ko ëpp boo ko mënee ah mu dem wax ko bàyyi mu dem wax loolu bàyyi mais bàyyi ngi kontaan kontaan kontaan boo ñëwee donc bon yal na yàlla yëkkati la yal yàlla yëkkati la boppam yal na yàlla dëgëral la boppam yal na yàlla sàmm la boppam euh, sa ñi nga fekkoon ñi digganteeg nekk sa baay yëpp ñu say baay lañ ñu say kilifa lañ ñi ay kilifa yoo xam ne sa baay moo leen teg ci place boobu ñu nekkoon te ñoom ñëpp xam nga ne mat nañ ko ndax buñ ko matutoon du ñu ànd ak yow nii hmm? buñ ko matutoon. bañ bañ defee istixaara ci ca place ba. ba wax ma ne ma déclaré loolu lu mën naa ko def waaye ñoom ñoo ko def ah. ma déclaré ne lii mooy suñ taxawaay bon nag gannaaw óoloo nañ la noonu bëggee nañ la noonu àndee nag yow noonu fexeel rafetal bu baax a baax ñii sa baay sa baay lañ ñii muqaddam yi fi bàyyi sa papa bàyyi woon ay muqaddam nañ jox leen daraja woowu nangul leen euh, nangu. terewuta nekk njiit nangu terewuta nekk njiit koo gis mu jiite rek dafa nangu woon ku nangu du jiite mukk laa dina euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax euh, sëñ Talla Talla Talla la sant ah Wilane sëriñ Wilane borom xutba gu neex gi wax naa keroog moo fi moo fi gën a mat ah xutba te dëgg la te te teg loolu moo doon dëgg ndax keroog ñun ñëpp moo ñu gën a fasaa waaw ah, parce que euh, am na place yoo xam ne boo fa nekkee noppi rek noppi rek bàyyi yàlla mu def li muy def hmm? boo fa nekkee di wax da ngay yàq da ngay sax nit ñi waaye ah? waaye ñu koy gërëm ba noonu la meloon ci sa papa amatul lu muy wax jeex na jeex na si noppi hmm? mu ko defee loolu yëpp ndimbal la pour yow euh, jafe-jafe yi sa papa fekkoon jànkuwanteet yàlla yombalal na ko balaa agsi ndax rëmbala na yoonu yëpp xalifa baa ngi fii yu amut amoo moom benn werante ah, kenn jaarul sa diggante ak ñoom kenn jaarul sa diggante ak xalifa yi di leen wax nangam ak nangam ak nangam loolu yëpp tàmbali mbaay bu dëgër la te du ko yaa ko defal sa bopp yàlla moo la ko defal ak sa liggéeyu bàyyi dama nekk gaana ànd ak samay moroom ñuy dugg oto bi accidenté am ci ku dee ci saa si ñi ci des ñëpp damm nañ man dara daluma <coughs> waa ji ma nekk téléphoné ko koo même ko moom mooy président wax ko ne ko accident am na waaye doomu baay ji rek moo ci mucc mu ne wax leen ko ne du tiitaram de wax leen ko ne muccam googu du tiitaram bàyyi ma ko ko liggéeyal kon ku sa baay di ku sa baay liggéeyal euh, respecté liggéey boobu ak fi ko jaaroo woon yëpp ndax nga mun a liggéeyal say doom yi tamit sa gannaaw loo xam ne daf leen di dolli sharaf daf leen di dolli ulu daf leen di dolli maqama daf leen di dolli ngeen mën a defal mii ñi li ngeen leen bëgg a defal ci diine ak ci àddina yàlla yàlla defal leen ko euh, euh, Cheikh Abdoulaye président de la république moo dem jaale ji ko yombut de du ku nekk ko mën a am hmm? du ku nekk moo ko mën a am donc bon liggéey na liggéey boo xam ne àggali na ko foofa hmm. bañ xam ko sëriñ yëpp ñëw nañ bu ko liggéeyatoon du ko am ah ko liggéeyatoon du ko am te liggéey na ko ci yar ci yar yar bu kawe yar boo xam ne dafay rusloo ñëpp ah, dëgg-dëgg buy ñëw bay néeg bi bay bay bay sukk di raam damay bëgg a jóg raam ak moom waaye bon damay dafay bon dafay yàqu bon léeb bi dafay yàqu bon bàyyi ko noonu rek ndax mu mottali ni mu bëggee mu mottali li mu gisee yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla gërëm leen yal na yàlla dimbale leen ci yoon yi nga xam ne moom lañ doon ci suñu ay waajur jamono bu nekk nag ay jafe ak jafe-jafe boppam jamono yi jafe jamono yi jamono yu werante la ndax jamono iblis la iblis moo aye fi nekk jamono jàll la dajjal moo aye fi mu nekk moo tax lépp lu nekk rek juutal nañ ko te lu li ñu juutal yëpp dañ ko wutal ay lay mm-hmm. hmm? jamono góor a góor takkante loolu kenn mësu koo xam te boo demee ñu nga am seen ñu nga am seeni lay mm-hmm. jigéen jigéen takkante ñu nga am seeni lay ak uh, yu yu suufee yi ngeen di dégg yëpp mu xew yooyu yëpp jamono yooyu ngeen ta seet bon jamono xam-xam la jamono nite la jamono yeewu la jamono dama bugg ak jamono bi dugal ci dugal ci la ñëpp nañ yàlla ci seen jamono yi yàlla bokkatut ci seen dund yi ndax góor gu ñu wax ne damay takk sama góor kooku yàlla nekkatu fa ah damay takk sama donc ba ñoom xasaf nañ yàlla ci dund bi fi nekk nag ñu koy dund seen dund bopp te dund ñu koy indi lu dut al yonent ne du waaye nag dinaa teg ci ñoom ay natt yoo xam ne ay natt yi bu ci ñëw rek ñu bëgg a daw corona baa ngi nii fi mu ne ñëpp a ngi bëgg a daw mais xamuñ fuñ jëm ah kenn buñ xam buñ amoon fuñ daw ñun ñëpp génn bàyyi fi corona bi dañ ko def waaye la qudrata lakum min al xuruji an ardi wala quwata lakum min al xuruji taxta samaa'i parce que amoo foo jëm amoo su asamaan su lay keral donc xuruj yëpp daw daw bi yëpp mooy daw daw daw rek jëm ci yàlla fa firru ilallah fa firru ilallah ah donc woon yàlla nañu yàlla taxawoo noonu yàlla na yàlla gërëm seen taxawaay yàlla na yàlla dimbale leen nangu nangulante kilifa yi ngeen jox leen seen cër nangul leen leen nangul seen gouvernement hmm? parce que warante sa gouvernement amul benn hein euh am am civilisé parce que nit ku civilisé euh mo a jafé ci aduna bi nit ñangi ngi dëkk France dëkk dëkk Dakar mais civilisé wuñ ah? civilisation diiné mo koy joxé diiné mo koy joxé xam-xamu diiné mo koy joxé hein ah? parce que amul benn civilisation bu gën a kawe civilisation islam ni mu lay digalee sa digganteeg nit ñi amul kenn ku la ko mën a digal yàlla civilisation islam rek moo ko dig moo ko moo ko mën inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu loolu benn téere jàngalewu ko benn philosophie jàngalewu ko yàlla rek moo ko jàngale yàlla rek moo ko yàlla moo ko xam. waaw laa yàlla mu man xalaqa wa huwa latiful xabiir bon bëgguma jël seen waxtu gudd na ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax yal yàlla nangul leen yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla taxawu guddi ga ma daan woo ba tey mi ngi fi rek ah xalifa dindiwu ko dara dindiwu ko mm. ñu dajaa rek doon ay taalibe sikkar xaal waxtaan tasaaroo ba tey dara dindiwu ko incha allah su jotee te ngeen am jot rek bu ngeen ma waxalee bu fekkee feebaru ma dara ma nekk feebaru ma dara nekku fi incha allah dinaa ñëw na ma daan ñëwee ma dem sikk ah allah jazakumullahu yéenay liggéey ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaan